dal leen ak jàmm ci xibaaru euh, marax yi niki tey ji nag ci altine ji li fi gën a fës euh, bokk na ci rek euh, ñi nga xam ne moom moo di ay jàngalekatu alxuraan lañ nag daal dañuy génne ba set ka doon jàngale daara ca Wakaam te ñu rek njot na da doon sàkku yenn ci ay rek taalibeem daan ci dikk nu mu gën a yaatoo daan ñu jël ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy rek sàkku xale yi nag mu mel ni ñu def wàllu ni mel nag loolee xupp leen benn yoon ba tax ñi nga xam ne pencum ndaw réew ma di rek sàkku ñu jëmmal euh, boobule loi dinañu wax euh, ci ñeneen ñi nag ay ndaw lañ yoo xamante ni am nañu seen i ay lijaasa mu mel ni xëy la ñu amul ba tax rek ñuy sàkku rek ñu daal di leen di boole euh, ci li nga xam ne moom moo di fonction publique naka noonu itam ñu dàq rek ki nga xam ne moom lañ dénk wàll woowee di rek ministre Mariama Sarr mbokk yi li lee di ponk yi nees yi daañu yaata salaamaaleykum mbokki safo télévision Futur Média dal leen jàmm ci xibaar yi nañ leen ko junjee woon ca bopp mbokk yi noonee la ñu koy dooree ay sëriñu daara yoo xamante ni ni ki tey jii ñu nga doon amal ab ndaje ak way taskatu xibaar yi bokk na ci li nga xam ne rek moom la ñu fësal moom moo di mer ba futtu ci jàngalekatu daara bi nga xam ne moom moo nekkoon ca Wakaam te ñu njort na rek da doon sàkku ndaw ña lu ñu bëgg moom moo di yoon daal di def liggéeyam ca wowule wàll daal nañ koy faat foofee nga xam ne euh, moom moo di ca Louga di ab taalibe itam bëgg nañ ñu yóbbu mbir mi fa mbaxane doone benn Fat Bintou Koné Fat Bintou Konté teewoon na boobule ndaje. ay jàngalekatu yu meer ba tey ji ñoo jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi lée ñoom ñi ñuy ñaawlu te it di ñu xamal ni kii nga xam ne moom mooy jàngalekat bi nekkoon fee nga xam ne ca wakaam te ñu jàppoon ko bokkul ci ñoom. ñu njëkk def mooy leerlu. parce que du nu ay malaaka ay nit lañu mën nañu juum waaye njuumte gu tollu nii nag ndaka lay amee ci koy jàngale alquran loolu ëlëm na ci ñun kenn ci ñun nelawut guddi googu mbokk yi lëg mën na tuur rangooñ te tuur ay deret mooy ko ko def laalewul dara ak daara. ñoom jàngalekatu alkoraan yooyu dañoo fas yéene sax ci procès ki nga xam ne jàpp na ñu ni ab sëriñ tariyaax la ñu constitué ci parti partie la bokk ci biir procès bi maanaam. lu dul benn du ñaar ñoo ngi nuy te tooñ gi bis bu nekk day gën di am euh, buñ di loon diviser sax suñuy ndam te yem foofu baax na waaye buñ ci tegee nag luy niru rek ak taqal rek ñu gaaw diviser ko ñépp dégg nañ ñu wet googu amaa nag dem ci yoon ñoo ngi ci foofu ñoo nga ca fan yi yëpp nag ñi ngi jàpp ne ñi leen di tooñ te tooñ baa ngi bëgg a bëri ndax seen i yi nga xam ne ci région yi ñu ngi leen di jàpp ñoom ñi nga xam ne ñu jàngalekatu alkuraan yi bokk ci fédération de Dakar nag jàpp nañu nii bii ci mujj nga xam ne moom mooy tali bi nekk ci Louga ñu ngi koy bàyyi ci loxo yoon wante nañ ko waxee dara amu ca cas bu bees bi mi ngi en cours mi ngi justice euh, njëkk nañoo def ab enquête ca Louga gis ni la ñu wax ni moom moo faat xale bi du loolu ñu ne waat kon léegi nañ ko yóbbu dakaar tey ci suba te indi nañ ko Dakar ñun tànk ay sëriñ daara duñ ca wax dañuy bàyyi yoon mu def liggéeyam waaye ñun óolu nañu suñu ay naatu ngong kenn ëpp ñu yërmande ci tuut tànk yi déedéet. jamono ji nag jiixi jaaxa bëri na lool ci maître coranique yi la ku ne di ci wax ba tax na ñoom nee nañu bu ñu sañoon lii nga xam ne moom mooy loi bi leen di réglementé te nekk fee ci assemblée nationale ñu voté ko. bu boobaa ku nekk xam kan mooy kan ak ku ne xam fan lay tegit sa tànk ku nekk xam fan lay teg sa tànk Fat Bintou Konté ci tout tànk yooyee sax nag la ñuy desandi daan yi nga xam ne rek jëloon nañ ko ci képp koo xamante ni day def wàllu wu ni mel mu mel ni xuppul benn yoon ñi nga xam ne rek ñoom ñoo koy def ba tax ñi nga xam ne ñoom ñoo teewal askan wi ca pencum ndaw réew ma di sàkku rek ñu daal di jëmmal boobu les lois ab ndaje bu ñu amaloon maam Biram Diouf Mohamed Saw Dieng viol ak pédophilie ñu criminalisé ko gannaaw ba ñu voté loi bi fukk fan ci weeru décembre bi ñu génn waaye tey jii mu mel ni mbir mi daa gën a jaaxal ñëpp ndax ñu ngi koy nemmeeku ba léegi. malgré que loolu am nit ñi ñu ngi continuer di sàkku xale yu ndaw yi di sàkku xale yu jigéen waaye nag li ma ciy wax rek mooy na justice def liggéeyam képp koo xam ne jàpp nañ la ci loolu nañ la teg daan yu métti yoo xam ne doo ko defati sa morom du ko gis ba di ko jéem a defati. yàggul dara ca académie Dakar Sacré Cœur ak ca Wakaam ñu ku fa lu ci mel muy ak acte de pédophilie ñu jàpp ni nag boo muyul ñoo ko def ñu teg la loxo ba tey xale bu jigéen bi nga xam ne am na juróomi at ñu kon yoole ko waaye te faat ko foofee ca quartier extension ci Diourbel ak ca Kër Massar xale bu jigéen boo xam it moom it àgg nañ ca kawam. ña ko jot def sax yoon teg leen loxo jamono ji li lépp nag tax ñëpp war a taxaw. ñuy waxtaan suñu ay doom parce que dafa am solo xale bu buy génn di dem ñun war nañ ko ñaax wan ko na ko boo demee ci école ba tey lépp loo xam ne am na koo xam ne def na la ko fa rek bu la tegee loxo ci mbagg sax boo ñëwee ne yaay diw de daf maa tegoon loxo ci mbagg ba nga xam ne tey da nga mën a jóg dem seeti kooku lu tax mu doon teg sa doom loxo ci mbagg ma xalaatim na tey y a des jeunes filles. parce que mën nga ñëw rek romb nit ci àll ba am fooy dem ne ko damay jëm béréb sanga mun a kaa ñu dem moon la ko yooyu yëpp dañ ci war a jël ay prudence yi nga xam ne tey du nit bi ñëw rek na la kaay rek nga jóg topp ko parce que doo xam fu mu lay yóbbu teg nañu benn programme benn campagne nationale de sensibilisation boo xam ne dañuy dem ci askan wi wax laan ak ñoom ci lu jëm ci viol ak pédophilie wax leen ku ko def li nga xam ne moo lay xaar waaye nag comme dañuy liggéey ak exécutif dañuy xaar madame la ministre de la femme def lancement bi le 8 mars ba pare su ko defee ba pare nag ñun parlementaire ñi dinañu dérouler suñu campagne pour dem waxtaan ak population. xeex bi ñu jëmale ci viol ak pédophilie laaj na nag lii de bi kon ñu doxal ko ca na mu waree bañ ci am lenn luñ ciy teggi. Mame biram Diouf cant ak ngërëm ñeel na la dañuy tàbbi ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu wér-gu-yaram li ñu bëgg moom moo di ñu daal di gën a rek yokk koppar yi nga xam ne ñu ngi koy fecc ci wàllu woowee ngir rek gën rek jëmmal ñàq yi nga xam ne dañ koy def ci rek màkkaan yi waaye itam fexe rek xeex ba li nga xam ne moom moo di sibiru gën a rek doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku fi ci réew bu Sénégal ki xam ne lu ni mel di Awa Gueye moom moo jiite commission bu santé foofee nga xam ne moom moo di ca ndaw réew ma ñu teewlu ay kàddoom. comme ñun ñoo yore kàddu askan wi war nañu mën a xam lan la ñu war a def ba nga xam ne njaboot gi dinañu wër ci kaw loolu nag vaccination daf ci am solo ndax olof dafa wax ne fagaru moo gën faju donc nag ñu ne nañu waxtaan ak ñoom. xool état bi lan la jot def ci wàllu vaccination ba feebar yi nga xam ne moo doon sonal njaboot gi yu ci bari amatul ñu xool itam yan défi ñoo posé wu pour ñoom pour que koom gi nga xam ne war nañ koo dugal ci biir vaccination bi député yi mën kaa plaider pour que ñu mën ko teg seen loxo ndax askan wi gën a mucc ci feebar yi. jërëjëf Mame Birame ñii la nag ay ndaw lañ naam am nañ li nga xam ne moom moo di seen i ay lijaasa li ñu bëgg moom moo di ñu daal di leen utal xëy bokk leen foofee nga xam ne moom moo di ca fonction publique di sàkku itam ñu daal di rek dindi ndombal tànk jëriñ ji nga xam ne moom moo ko jiitee di rek ki nga xam ne ah, moom moo di ah, Mariama Sarr ndaw yooyee nag maire ba futt ba tax rek ndiki tey ji si suba ñu amaloon ab doxu ñaxtu Mohamed Samb ah, teewoon na fa bi ñu ñëw fii nga xamante ni si moo di ministère de la fonction publique ñoom ndaw yi nag lenn rek moo leen tax a jóg moo di ñu jëlee fa jëwriñ bi yor boobu leen ministère ngir ndaw yi nag nga xamante ni si boobu ba tey ñu ngi xaar ab liggéey ki nga xamante ni moo di Mariama saar dafa leen a tànkamlu comportement état Sénégal rawatina ministre de la fonction publique Mariama Sarr mi nga xamante ne dafa jël fonction publique di ko waajalee ay élection mairie te élection mairie duñ ko waajee ci recrutement fonction publique da jël say nit say mbok say dëkkandoo di di di euh, leen recruter bàyyi nit ñoo xam ne am nañuy diplôme noo mën a concevoir nit déposé ci plateforme même pas 3 mois 4 mois ñu jël ko alors que am na ñuy ni déposé nañ 4 ans 5 ans. jël ay gone ndaw yoo xam ne nii bag dong la ñu am di leen jël alors que ay bëgg mu jëm ne fi ay ay ay ay yaakaaru famille ñu élagué leen parce que lan moo tax parce que duñ ay mbokk wala duñ ay xarit duñ ay militant. loolu la ñuy ñaawlu te loolu ñuy woo président de la République nga xam ne moom la ñu fal. ñoom ndaw yi nga xamante ni si ñoo di regroupement des diplômés sans emploi bu ñu sukkandikoo si ñoom pare nañu ngir waxtaan ak njiitum réew mi ngir mun a ut ab saafara ci mbir mi di leen yëgal ni comme ñoom dañoo tëlee si question de l'emploi ñun am nañu ay propositions leen war a def te ñu ngi waajal lu ñuy woowee forum sur l'emploi boo xam ne dañ leen ciy woo ñu ñëw ñu toog waxtaan ci nas yi ndax lii ni parce que lii mënta wéy e à trouver des solutions pour lii mën a dëkk lii mën a parce que ñun suñu jànguñu pour toog fii di kaas dañoo bëgg ñu ñu toog ñu ñu toog naan ataaya mais dañuy toog naan ataaya amuñ solution parce que xëy kenn du ko jox sa bopp mënoo xëy rek dem ci bureau damay liggéey il faut ñu woo la fa mënoo koo forcer lii duñ ko bàyyi fekk amuñ solution semaine bu ne dañu am activité bu ñu def te yéen presse dañ leen informer non plan d'action bu ah, A ba tout chaque jour am nañ activité ñu prévoir. lu bëri ci ay jafe-jafe moom la ñu teg ci ndoddu jëwrin bi ñu dénk wàllum fonction publique juróom-benn junni ndaw yi nga xamante ni ñoom la ñuy duppee sans emploi te ñu nekk ci benn plateforme ñoom nag ñu ngi laaj rek ñu daal di mën a càmbar maanaam auditer li nga xamante ni moo di recrutement bi ci fonction publique bi. ñooñu di ut xëy ñi leen nag dañ leen dàq fa nga xam ne rek fa lañ doon xëyee seen ak lim tollu ci rek ñaar téeméeri ndaw yoo xamante ni ñu ngi doon xëy ñi def lu ni mel di waa CDE nag ki nga xam ne moom moo di njiit bu haut conseiller bu dialogue sociale nag di Innocence Ntap Ndiaye moom la nag rafetluwul wu ni mel ci dëkk boo xamante ni dañ ne rek day émerger ñu teewlu ay kàddoom Mohamed Samb moo ko taataan. Euh, Grand Moulin de Dakar nag wax dëgg bi ñu ñëwee si ñun presque mat na at mais ñun bu ñuy dem dañuy gëstu ci biir entreprise bi lan moo fa nekk te amul woon benn tension travailleurs yi ak direction bi ñoo bokk di ñëw réunion yi nga xam ne moom la ñu organiser pour préparer activité bi ba fi mu nekk ni ñu jàpp ni nan lañu def ñetti réunion yoo ñetti formation yoo xam ne pour que euh, liggéeykat yi ak direction bi ñu mën a jublu ci juste euh, ci benn am benn objectif dañoo doon seet entreprise yi nga xam ne dañu naan ci tubaab dañu nekk en difficulté mais seet aussi benn mécanisme boo xam ne mooy mën a coordonner pour ñu relancer leen. bu yàggul dara benn entreprise bu mag boo xam ne fleuron la li ñuy wax ci industrie Sénégal dafa wàññi liggéeykat yi fa nekk presque à hauteur de deux cents agents xam nga bu bu ñu ngi bëgg a dem ci émergence. entreprise yi dañ ko nar a sentir te wàññi ay nit moom loolu du du signal boo xam ne dafa rafet looloo tax il faut que ñu gën a bar ci li ñuy def ñu desandi ci xëyub ndaw ñi ba tey mu mel ni nag ni ki tey ji euh, sëgg nañ ci li nga xam ne moom moo di doxu ñaxtu bi nga xam ne rek syndicaliste yi nag ñu ngi ko doon euh, def ci atum 2019 seqoon nañ ko ak jëwriñ ji nga xam ne rek moom lañ dénk wàllu liggéeye ak ñeneen ñoo xamante nii rek dañuy yëngu ci wàllu wuni mel ki nga xam ne nag moom moo di jëwriñ jooje nag bokk na ci lu mu xamle moom mooy réew bu Sénégal naam am na lu mu naan ci askan wi waaye mel ni mënut matala loolee lépp dañ koy teewlu ay kàddoom Ibou Diouf moo ko taataan. dund moom doomu aadama ànd na ak euh, seexi ay jéego jëm ci kanam ak laaj yu bees boo ma nee lan moo des lu ñu defandi mooy ne boo ma joxoon tey lu duun du tee tam bu ma ko téye sama loxo sama mébét mooy ne na gën a yokk. li des donc mooy xanaa liggéeykat yi ak njaatige yi ak gormaam ñu continuer di toog rek di diisoo di waxtaan di xam di xëccandoo di dóorandoo di seet. lan la jamono ji laaj ak yan jumtukaay lañ yor pour ñu defandoo li am na yeneen yoo xam ne tam euh, def nañ ko est-ce que yëpp nag motandi na liggéeykat yi dañu ne am na yu des naam waaye nag nekk na lu diis loo xam ne dafa laaj ay jumtukaay yu tar pour xam ne yombewul noonu mais waxtaan wi ak diisoo mu ngi continuer pour suñu réew mën a nekk si réew yi nga xam ne li ñuy laaj tey jamono euh, maanaam exiger ko dina ci mën a wuyu bu baax a baax ñu àddu ci leneen lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal ki leen nag principal ca CM Ousmane Ngom ba nga xam ne moom moo nekk ca Thiès ni ki tey ji nag la xëy rek daal di dem jamono yi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay wéyjuram ndongo yi ba ci sax yeneen i jàngalekat yoo xamante ni ñongo ca boobule CM nag ab njàqare la ñu yeewoo Cheikh ante Diop ak Seylatir doxantu nañ fa daal di ci def ab jàngat bu yaa ñu seetaan. daanaka njàq rek tiis ñeel élèves yi nekk fii ci sem Ousmane Ngom tey jii ci suba de daanaka ñoom ñëpp sëmbaxloo taxaw ci kuur bi ku ci nekk di xool sa moroom ñu di ko waxtaanee nee nañ xibaar bi ci xarala yu yees yi la ñu ko gisee professeurs yi sax ñoom it jàngalewuñu ku ci nekk di def commentaire ci li nga xamante ne moom moo xew moom mooy Sadio ko mbóoj mi nga xamante ne moom mooy seen principal bi ñu ne dafa jekki-jekki dem. parce que ñun yëguñu ko woon sax dem si guddi lañ koy doog a yegg yooyu noonu après ñu ni dimanche à 16h la gën a ñëw seen kër ak yooyu noonu tey sax jànguñu dañuy def arrêt des cours pour disparition bi moo tax. met nañ ñun ñëpp parce que dafa baax foog gis dañ koy gis muy reetaan ak yooyu noonu yëpp. waaye nag ki nga xamante ne ku ko jege woon la nee na lii de lu ko ëlëm la waaye am na sax loo xamante ne joxe na ko ci xibaar ne nag kii dem de mos na koo wax lu nu mel. te mystère yooyu jaaxal nañu ba ndax euh, moom euh, nit la koo xam ni euh, nit la ku teey la. ku bëgg liggéeyam la ku fonk liggéeyam la dañoo yaakaaroon ni comme gisuñu ko xëy na dafa nekkoon ci bureau euh, malaise jàpp ko fa wala yu mel noonu wala mu tëju moo taxoon ñu yaakaar ni dafa nekk ci bureau mais loolu amul ndax bureau bi euh, c'était ouvert yaayam bi mu génne àdduna loolu da ko marqué lool parce que moom dafa taxoon ci yaayam trop waaw à chaque fois bu xoolee fa yaay ji sax léeg dafay dafay jooy mais loolu est-ce que raison bi la parce que mos na toog benn jour ñoom ne man doy ma daal léegi damay rek di fàtte di di am euh, trou de mémoire mais da da koy arrivé de temps mais après day day deñ mais nag euh, yaakaaruma ma mën a activé niveau boobu. jamono yi nag procureur bi dem na fële ca këram ca quartier Somme ba jamono yi nag ubbi nañ ci enquête xool nag mbir mi li ko waral. bu ñu jugee Thiès ñu dem foofe nga xam ne moom moo di ca kaw Kaolack daal di leen dégtal ab benn ndaje boo xamante ni amoon na fa ab lajj bu loi bu 2015 di aay rek li nga xam ne moom moo di mbuus yi fii ci réew bu euh, Sénégal ab lajj bu mag la ki xam lu ni mel nag di jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu alam gi di Abdou Karim euh, Sall moo ko xamale ca boobu la ndaje itam daal ni ci toftal na rek loi bu yees bi nga xam ne jël nañ ko ci atum 20 daañ ko làbbali lépp loo xamante ni rek war na ci wàll wi dinañ ko jël ah, ki nga xam ne moom moo di Ibrahima jàmmee ak Fally Gueye fekke woon nañ boobu la ndaje. loi bi ñu fi tëraloon ci atum 2015 pour xeex lépp lu jëm ci sachet plastique faible micronage daanaka jurul dara bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji yore wàllu environnement dafa bëri ay insuffisance kay limite la réalité c'est que on constate que objectif bi nguur gi amoon mooy eh, jëlee fii plastique objectif boobu atteindre ñu ko looloo waral euh, son excellence le président de la république euh, jox ñu ndigal euh, pour ñu fexe ba taxawal beneen loi parce que loi boobu dafay tenir compte insuffisance yi nga xam ne ancienne loi bi amoon na ko non seulement ci wàllu périmètre d'interdiction bi xam ngeen ni loi boobu benn xeetu mbuus rek la doon tere alors que tey li polluer weesu na benn xeetu mbuus loolu waral ñu indi coppite indi beneen loi c'est la loi 2020-04 du 8 janvier 2020. loi bu bees bi nag tax ñu amal CRD bi de ngir mën koo xamle gën a sensibiliser askan wi loi bi nag dafa am ay daan yu diis yu mu àndal yu mel ni amande ba tëjum kaso xëj na ci jëruñ gi jàpp ne nag ak loi bu bees bi le lii woon dana woon ni lépp ay changé. parce que la loi reste la loi. Euh, bu ñu sañoon du ñu egg ci ci ay sanctions ñëpp dégg ñëpp am même dégg-dégg euh, ñëpp bàyyi li nga xam ne moom la yoon tere waaye bu jaree ñu egg ci ay sanctions incha allah dinañ ci egg euh, sanctions yi mu ngi bàyyeekoo ci laal poche. ba jël nit làq ko euh, jant bi. bu ñu sukkandikoo ci chiffre yi ministère de l'environnement joxe nag fii ci Sénégal daañu produire lu mot ñaari téeméeri junni tonnes déchets plastiques at bu jot fii ci Sénégal diwaanu Ndakaaru nag moo jël ndam li ndax bés bu yàlla sàkk lu mat junni ak juróomi téeméeri tonnes lay produire. ñu dellu ci waat fii ci Ndakaaru wax ci kuréel bi nga xam ne rek day xeex wàllub nag cigarette li ñuy sàkk bokk na rek ñu del di jëmmal bépp matuwaay boo xamante ni jëloon nañ ko ci wàllu yi moo xam li nga xam ne moom moo di séddale bi ba ci sax anam ba nga xam ne rek noonu la ñu koy séddalee ci yenn barab yi ab ndaje bu ñu amaloon Ibou Diouf Pape Sangone Mbaye ñoo ngi fa woon. bëriwul ci boutique yi ngay dem ci biir réew mi table ak yenn kiosque yi rek te fekk ko fa li nga xam ne mooy cigarette moo ne del am na ay mesures yoo xam ne nguuru Sénégal jëloon na ko boobaak léegi ngir tere li ni mel mu mel ni nag loolu moom amaguñ ci résultat. lan moo ko teree ñu jàll xamuñu ay question nag la ñuy laaj est-ce que dafa am ñu koy bloqué est-ce que dafa am ñu ne ci ginnaaw est-ce que dafa am ñu làkku bañ xeex mi bañ a sori ak yu demee noonu en tant que société civile dañ leen di interpellé. pour xamal leen ni vraiment il est temps que décret boobu jàll pour que ñu mën a continuer xeex bi. LISTAB di kuréel ba nga xam ne rek mooy xeex lépp lu aju ci wàllu poon ak li ciy bàyyeekoo. boobaak léegi nag ñu sumb xeex bi. ñu gisuñ ci nag résultat bi tax na rek ñu ne jot na ñu dugal ci ñeneen ñoo xam ne mën nañ leen déglu ci réew mi. muy kilifa diine yi mooy li leader d'opinion ak yu demee noonu mais ñu dellu waxat leen ne leen ah wax dëgg yàlla xeex bi ngeen doon jàppale ba booba tey gis nañ ni fan am na ay jafe-jafe jafe-jafe yi mooy lan dafa am ay texte yi dafa am texte bu dugg bi nga xamante ni moom moo war a organiser njaayum cigarette bi texte boobu ñu ko bloqué xamuñu lan moo ko bloqué ñu bëggoon ngeen wax ak président de la république. ligue sénégalaise de lutte contre le ñu gën leen xam ci listab mu ngi sàkku ci kilifa yi rek ñu saxoo li nga xam ne moom lañ xaatimoon boobaak léegi bu ko defee tamit ñu mën a sumb yeneen xeex. ñu wax ay chiffres demee noonu. donc décret bi moom moo ñu mën a dimbali donc état nag moom mooy tànn entre protéger ces populations ak aussi jël ay intérêt mooy intérêt yi nga xamante ni mooy yi ñuy am ci industrie tabac. nees def ngir fexe bi décret bi rek ñu mën ko wote bu ko defee ñu mën a wéyal xeex bi waa LISTAB nag ñoom nee nañ dinañ gën a yëngu plaidoyer bi ñu sumb dinañ def kem kattan ngir matuwaay ñu jëloon ngir mën a saxoo loi 2014 bi ñu mën ko jëfe fi ci réew mi. Ibou Diouf euh, loolee daal di buur yi la jotaayu xibaar mbokk yi cant ak ngërëm ñeel leen yéen bi nga xam ne boobaak léegi yéen ngi ñu doon topp ñu loon leen di digteel xibaar yi ci kàllaamay Kocc rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Chérif Diop noppi na ngir digteel leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam mbokk yi ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média Aram Touré ci soir d'info